maa ngi ñaan nag ñëpp ñu may ma ñu déglu alxaaji Malick su paree ñu. yal yàlla fay la. Euh, fi conférence bi neexee nag lay tase. affaire baa ngi soog a jàpp. Chérif dafa nekkoon ci di taal taal bi. mu ngi doon uppe côté bu ne pour jéem a capter. bi mu demee ba tee faculté d'écoute yëpp la bëgg a tàggoog ñun bi mu téewee ñëpp la tàggoo te yonent bee wax maamam xayrul umuuri xawaatimuha nee na li gën ci mbir yi mooy bu ñuy tëj moo tax ñi toog ba mu cate nii nañu xaar ñu ñaan damay laaj damay laaj nu quartier bi tudd cité Sahaba walla Saba Saba ah d'accord d'accord première dëkkandoo mooy kan fii ñu toll ci jamono bii man bariwuma xaalis nag mais ku ko xam ma jox la ñaari junni première dëkkandoo déedéet déedéet ngeen baal ma moom moo doon waxtaan tam maa ngi doon déglu boo gisee bu laajee du ma tontu mooy dama koo jege damay bañ tontu yéen ñi war a tontu tontuwu leen moo tax bu ne fu fu ma yemoon rek ma noppi. xaw woykat yi rakkaaju na ñaari junni yi la fi mu baal leen ma rek dafa am dama def ixtibaas li arab tuddee ixtibaas dama tibb ci li mu wax bëgg a synthèse conférence bi mais professeur dix minutes. dimbali ma 10 minutes rek ma tëj ci conférence bi suñu mbokk mi wax ñaari minutes ñu soog a jox Chérif Sidi Makhtar Kunta mu ñaan xam naa dinaa joxaat Chérif ndax dafa am loo ko bëgg a laaj ci xaritam ñii ñaar gis nga kii dafa raar man bi muy delloo xaalis bi maa ngi miir buy def yi sama àdduna day tukki ndax yéen bi may xaar daara ja balaa ma koo meree rek nag fu ma koy meree rek bu mu naan bu kenn ñëw ma ne sërif dina ma rey des fi nag <laughs> ni sëñ yii fu mu xewati dama ne lii ngeen lii fu mu xewati man bu doon man jóg naa bu yàgg balaag maaram ay saak faajo mel ni bëyu ndëpp cenc lay lijjanti mu niñ gars yi xew borom bone kaare ba du ko jengal du ko sengal xaalis xoolal dafa xew lii amul lii amul ci senegal kii dafa raar gis nga man awma liberté de ci dem ànd ak ku ne mais billaahi bu ma doon bëgg a yéeg avion mu ne ma bul dem tey wallahi ma bàyyi bu ma doon bu ma daggoon billet xam nga ko àndile sa vol moom dangay pert mbaa nga fayaat su ma daggoon billet bëgg tukki mu ne ma bul dem billaahi ma bab gis nga nitu valeur yi kuy taxaw fi xoolal léeg-léeg ma dee Sidi Maxtaar ne ko waaw Chérif li mu naan sax xarit nga yow loolu noo ko gisee mu ne ma Chérif francisem moo amul ci traitoire réew mi ne ma am na ñu baax de ñu ko gën a jege sama jëmm ji mais day jàngale sang ngi nii toog gis nga ñaar ñii moom moo ma moo ma teg ci loxol shérif mii te keroog ba may dem kër shérif woowu ko sama benn rakk laa woo Mansour Thiam ne ko tey damay dem ci shérif mais moom moo ma teg ci loxol shérif te lu mat ñeenti at heure bu ñu toogee mu ne ma gàmmu shérif de yow lay àndal shérif dama bëgg nga jàppante ak shérif te Sidi Maxtaar Kunta région ba ñu dëkk Thiès bu ñu ne ma woon indil koo koo jàpp ni amul ayib billahi wallahi tallahi du dem feneen ci moom lay ñëw jël ko mooma ma discoural ci kii dafa ma naan shérif bu ma sañoon mu ne mu ne ma kenn du acharné wu sax jëm ci kawam ma ne ko tax mu ne ma dañoo yàgg dama xam ni lu mu néew néew daje naag lu mu néew néew fukki mag yoo xam ne àjjana la ñu jëm te gërëm nañ ko laataa ñuy dee moom mi moo a ko wax am sa nawle di wax ci lu tol noonu ci moom xamuloon danaa ko fa shérif tàggutul dara ci shérif teraanga maamam doy na ko sëg mais kii dafa raar conférencier bii amul man su ma toogoon ci taabal ji ñëw ngeen bu yàgg ndax ruq yi may jaar dafa am xissa yu tiris yoo xam boo koy dóor rek gars yi di ñëw waa dafa am ñun jàng nañ loolu dafa am xissa yoo xam koo dégg mu koy waxtaane dóorul mais man laay dama koo fàtte yi muy waxtaane xamatuma ko sax ci téere bi sama yeneen affaire laa yor comme ni gorkatu pël Fuuta bi di def matt yi gor rek te gis nga wax na dëgg de billaahi xam xam maanaam bokk ci coow li xam li ko waral xam li xew a ko gën teel leen mën nag première dëkkandoo Serigne Babacar Sy xam li xew dafa am solo Cheikh xalifa Khalifa Serigne Babacar Sy du xam ngeen ko doomi Cheikh Al Hadji Malick ji ki jubóog boroomam dafa woolu benn mag damay bañ a tudd tur ne ko damay ñëw ndakaaru bis sàngam waaye sirran nag ndekete góor gi xamul luy sirran ne ko nag damay ñëw waaye ñëw bi sirran waaye nang ma xaar ca gaar ba ca laay wàcc ndax saxaaru fajar laay jël góor gi ñëw Ndakaar dem ci mag ñi ku mu gis ak ne sëñ Babacar day ñëw Ndakaar waaye sirran nag di wër Ndakaaru ba Ndakaaru daj kap sëñ Babacar si déparé saxaaru Tiwaawoon fajar bi muy agsi Ndakaaru 11h seen gaar bi fees del mu ne ñi mu àndaloon wër leen ma góor gi diw ñu wër ko mu xaabar xaabar rek daraa ji nag ñëw sëñ Babacar ne ko waaw ci nopp bi lu ma la waxoon xanaa ñëw bi du sirran mu ne ko billaahi si ku ma ko yëgal dama ne la sirran moom li ko rey baatu sirran xamul li xew sëñ Babacar ne ko sirran mooy secret lu nëbbu mu ne ko si maa rey damaa xamul li xew dëgg bokk ci coow li xam li xew a ko gën maa ngi laaj première dëkkandoo moo waxtaan ci laa tibb benn ngoog ñaareel bi ci des première dëkkandoo da ngeen ma ko wax mbaa ma wax ko moom nag bokk ci imaam Souleymane bokku ci surafa yi bokkuñu ci xaqiqa ma tere ma boole leen ci euh, déedéet du yàlla ah du conscience déedéet du sa bopp du sa jabar du sa jabar du sa gel alaxmaan dañ ñu ma ah dëkkandoo jamono bii dañu am dëkkandoo du cenc déedéet waaw jeex na gis nga dama ne du sëy du sëy cër waaw kay ma ñëw ñaareel bi ci des est-ce que catholique yi ñibbi nañ ñu ngi fi est-ce que xam ngeen diine jii nag naa leen wax lenn bu desee monnaie jox leen ko chrétien yi waaw bu desee monnaie maanaam bu l'islam des defee dara bu amee chrétien ñi gëm yonti yàlla Isaa muy Jésus Christ lañ ko war a jox ñooy boroom seen maam Cheikh Al Hadj Malick bàyyu Cheikh Al mii ma doon tudd ba ca septième gaar nee na bi lislaam juddoo doon doom ju ndaw feragul amagul doole amagul kattan ay mbokki sayiduna muhammad dañoo xatal yonent bi màkka perturbé leen yonent bi xool-xool istixaar yàlla ne ko yóbbu leen Éthiopie yonent bi ne ko Éthiopie ay catholique fa ne buur ba sax catholique la najaasi la tudd yàlla ne ko foofu nga mën a rawale diine ji su dul moom diine ji du fer du màgg cheikh alxaaji malik ne ba ñuy dem xam naa ñaata nit la yonent bi yebal xam naa ñaata góor lañu xam naa ñaata jigéen xam naa luñu war xam naa yoon wu jaar xam naa lañu fa fekk tawajjahu bu leen woy de bu leen woy bu leen woy li najaashil bahra xad rakibu baa an wa rajulan fii arba'i runumi ci woy wi waaye maa arba'i runumi ci prix mi fii du taxaw place maa eh buur bi ñu tuddee najaas yi catholique la jullit yi ñëw dajeeg ñoom ne ko dañoo làq si suñu diine ci gàttal rek def ne leen antum suyumun wa tayru sarri lam yusami toog leen da ngeen mucc danaa protéger diine ji ba mu dëgër ngeen soog a delluwaat moom màkk moo tax Najaasi tuub na dugg ci lislaam dund ci dee ci gisul sayiduna muhammad ñu teg ko xabasa di ko jullee yonent bi taxaw madina ne saxaaba yi def leen sappe ñu ne ko koy jullee mu ne najaasi dama gëm sopp ma dooleel ma wëlbatikuwaat moo aaroon lislaam bi lislaam néewee doole tey dee na nag yonent bi ne jibril tàgge na ma ko saxaaba yi def sàppe mu taxaw kabbar ñaanal ko yeggal ne leen malaaka yaa ko yenu ma ngay jëli loos moom aljanna ñu sëlmal moo tax salaatul xayib la waaye nag fuqaha yi dañ ci wuute imaamu malik nee na kenn du ko def néew boo tiimul mënoo ko jullee nee na xusuusiya la xaasiya la ci yonent bi kon première dëkkandoo ah koo bokkalul déedéet shérif tudd na ki nga bokkalul diine am ngeen dëkk mais shérif tudd na ko bu dee yéen ngi doon suivre tudd na ko ñaareel bi ci des balaa maa wax première dëkkandoo ma dolli ci beneen ki yàlla njëkk a dimbali ci kaw suuf kan la ah ki yàlla njëkk a teral kan la kan ah doomu waa fu mu terale doomu aadama fan fan la ko terale kon nag ma dem xam ngeen kuy première dëkkandoo à l'heure actuelle du jëkkër du jabar du yaay du ndey du bàyyi ñun ñëpp tey ku ne am nga dëkkandoo bu bees <laughs> nañu waxante dëgg te yàlla tax waaye kii mooy sunu xarit mi ngi bëgg a tas sëy yi dafa ñëw ci kër gi te yëguñu ko dafa gane te fàtte nañ ko seet leen da dugg ci kër fekk jëkkër wéeru nële jabar weeru nële taw ba wéeru nële caat ma weeru nële ku ne di wax ak dëkkandoom ki nga codifié mooy sa dëkkandoo universitaires yi xam nañ loolu. texte bi ñëw na ba pare te wax nañu kii léegi ndax ñoom dañuy jël sa wax bàyyi bu yonent. déedéet da am mafhumul jadid. non mais awla euh, oh, lii nag mooy blocage réew mi tamit nag dama ne lii mooy blocage bi nag xadis bi nga jàng maag yow a ko jàngandoo al mafhumul jadid laa lay wax. kii njëkk dama ne sëñ bi kii njëkk ki nga njëkk ki ngay ki ngay ëpp li ngay dëkkal ki nga ëpp li ngay waxal ki nga ëpp ki nga nekkal mooy sa li ngay jëfandikoo à l'heure actuelle ku am dëkkandoo bu gën a jege portable na ma ko wax dama ne ndax d'accord ngeen dëgg oh ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan oh, ay waay waay Chérif waaw sëñ bi nag xam nga xam nga dafa am lu may jàngale dafa am lu may jàngale oh la la ndeysaan xam nga nag lii nga def da nga waroon bàyyi ba ñu wéet maanaam dañuy jàngale ñun ci pénc la ñu toog xam nga wasaa ilul idaax dafa am jumtuwaay yu ñuy jàngalee waa sama ra'yu boobu laa bëgg ñu yóbbaale ko ban mooy bu yonent bi mooy ban maan mooy ban ban la déedéet wax ma ko rek dimbali ma waaw wax ma par première dëkkandoo wax ma ko waaw wax ma ko rek dimbali ma rek ah d'accord ah sëriñ bi nga ni ndeysaan mais d'accord nga ci li ma wax wala nee na on est tous d'accord ah parce que mafhumu jadid dafa am waaraate wu bees amatul mais dégg gu bees dafa war a am ku mënul la wax ak sa jamono ku nekkul au diapason du temps mënoo interpréter alquranul karim mënoo firi xadisu rasulullahi man maa la wax loolu lu nit di laal rek mbaa nga koy yër yër nañu ko dama ne ki nit ñi gën a codifier fii ñu tol portable la e sa dëkkandoo la mënatoo ko bañ yonent bi tudd ko woon imaam sànq bi ñuy julli timis waaw wax na ci kaw ne uh-huh. ba balaa muy li xaamal nañ ko ba pare uh-huh. mu ne jubal leen sàppe yi uh-huh. ci julli ki la bokk te ngeen fay portable yi billaahi boobu maa ngi naan ci sama xol balaa ñoo pare portable dina fi sonné balaa ñoo su balaa deuxième rakk la portable sëlmal te imaam nee na fey leen portable yi oh. tey rek tey maa ngi woo sama benn njoboot Omar Diop mu ngi nii du ma bàyyi ma fen bi ma ko nee demal nga couvrir yi euh, conférence bi na nga jël numéro téléphone bi télévision bi sama télévision la Chérif baax TV bi ma koy jox consigne ne ko demal nga couvrir ko te bu ko def en direct dama woote ñaari yoon ci portable am muy sone xam naa heure bi boobu il était quatorze heures euh, dix xam naa ne jàkka lay jullee wóor na ma mu nga jàkka ja loolu bu feebarut xam naa ne jàkka ja lay jullee mu sone ma coupé ne xëy na mu nga jàkka ja ba vingt ma woote doomam décroché bu jigéen ne ma sama papa dafa dem jàkka ja ma ne ko waaw jàkka ji kañ passé na waaye nag bu ñëwee nga ne ko mu rappelé ma ma toog ba 30 ma rappelé ko ma ne ko Omar wax naa leen ba tey donte yóbbuwaale woo portable bi booy dem ca jàkka ja fay ko mënuñoo muñal yàlla bu ñuy jaamu yàlla fay suñuy appareil mënuñu ko éteint lañ wax éteint fayal jàkka joo fi dugg imaam yëpp dee nañ ñu ngi bind ci kaw éteint fayal bul taal bande bu rouge waaye kenn mënta julli ci jàkka bi sëlmal te déggoo portable bu sone te portable bu sonné désorienté na ñëpp waa jàkka ji yëpp de man tey xaw ma lu ma julli ndax sone sonnerie bu xur la yore sax boobu xaw ma chinois la xaw ma japone waa léegi li ma bëggoon a leeral dafa am lu ma bëggoon a leeral rek Chérif dugg na ci mooy dañu am dëkkandoo boo xam dañu codifié ak moom te ngi perturbé loolu laa doon bëgg a wax mais bu leen ko jàppee ab jàmbur dëkkandoo la yonent bi tuddul portable mais ci dëkkandoo yi ñu amee ci la bokk ah waaye suñu bopp la bopp bokk waay kon li ma wax jub na allo sa xool mais kaamil bi ci boppam maanaam nit ñi téléphone bi lim lay occupé ak lim lay jëlal ci temps soo xoolee par rapport ak yow sa sa sa rapport ak kaamilu alquran ak sa ndey ak sa famille dafal dafal comparaison boobu voilà waaw loolu jar na bàyyi xel loolu waaw délégué de quartier nee na naa continuer maanaam du du lu ñu jóg nii rek sànni ko wax li shérif di wax balaa ngay addu da ngay def méditation ci loolu def ci tafakkur xalaat ci mais dama ne yonent bi su ñëwoon tey bu konektewul xamul li xew ci réseaux sociaux du mën a nekk xaatimi nabiina wa imaamil mursalin am déet il faut que day nekk au diapason du temps soog a mën a diriger nit ñi dama ne portable tey dëkkandoo la boo xam ni mi ngi perturber mbaa muy saboter mbaa muy yóbbu ñu foo xam ni tey amuñu ndey ju ñu fa yóbbu amuñu noon bu ñu fa yóbbu amuñu xarit bu ñu fa yóbbu amuñu sëriñ bu ñu fa yóbbu ñii dérapeloo na leen ñii tegaat na leen ci siraatal mustaqim ñaareel bi ci des xam nga maa ngi firi alxuraan ci télévision bi ndeysaan sànq bi ma génnee julli timis am na ñu ma téye naan ma ñu ngi seetaan mais gis nga soo seetloo tafsir bi mhm. waxuma bayaan waxuma usul waxuma fiq parce que suñ cheikh dañ ne ko lu tax waxtaanoo ci fiq bindoo ci mu ne maa fi kutubil fiq illa al xusumaat téere fiq dafa bëri werante te kilifa gu ne gu tol ni man wax ba yeggal xale bu ndaw weddi la boo bëggee rek na am ci pénc mi sëñ cheikh ne kon exclure naa fiq duma ci wax maa ngi ci littéraire yi maa ngi ci poète yi di tagg naa sayduna muhammad di tagg sama maam cheikh alhaaji malik di woy cheikhuna tidiane sama sëriñ ñu ne ko tax mu ne damay bañ xale bu ma weddi te ku wax ci droit rek muy fiq nit weddi la parce que dafa bëri polémique mais am na koo xam ni boo ko xoolee xam ni làmbatootul mën na nag mu jiitu la mën na mu jiitu la ci mafuum yi gën la ko xam yéen a jàngandoo téere yi waaye bu ngeen dawee ci penc mi rek mu bàyyi la fa te wax naa ni waaraate yombul balaa may yeggale ñaareel bi xam nga naa ko wax ci télé bi bind ci tableau les enfants dansent wala les élèves dansent ñu naan la monsieur luy danse nga naan danse mooy da ngay jàpp fii téye fii def nii loolu dañuy xam mënoo jàngale luy danse danga naan leen tàccu leen doom ñu taccu nga tëb riic sa ndigg ne saayi bu ñu yuuxoo nga ne leen danse ngoog mais jàngale yombul de ñi jàng ñëpp dañoo war a noppi Cheikh Al Hadj a ko wax nee na ñi jàng ñëpp nañu noppi ñu ne ko ñana war a wax mu ne ko amul sagesse noppil actuellement sagesse ay waaraate looy wax nit ñi xam nañ ko boo amul xikma mënoo def daawa te waxu ko rek yem ci dee daf ko bind daf ne man lam yajlis ala kursiyi lxikmati fala yambagi lahu an yamura bilmaarufi aw yanha anil munkar ñaareel bi ci des ma romb ko ñaareel bi ci des mooy teraanga bi yàlla njëkk a defal nit Seexuna Tiijaan moo ko définir moo ko wax bi muy sant yàlla te xam nga yaaman azhar al jamil cheikh indiwu ko da ko fekk ci doge tariixa bi cheikh bi ne ko maintenir ko ndax sa xaas yaa ngi ci biir mais baat bi mu ci wax te mu gën a garaaw dafa ne yaa mubtadi an bi niamati xabla istihaqiha ñu ne ko waaw loo ci jublu mu ne teraanga bi yàlla njëkk a defal nit mi ngi ko ko defale keroog bi mu sexee weenu ndeyam defalu la ko ci raam defalu la ko ci dox defalu la ko ci sax bëñ defalu la ko ci wax teraanga bi yàlla njëkk a defal nit sëriñ Cheikh Tidiane si Serigne Cheikh bu mag laa wax Chérif nee na yàlla nga ko defale nit ci keroog bi mu nee cas weenu ndeyam xoolal midi nga judd midi midi deux midi trois toqantal bi ñëw midi cinq sa yaay def nii weenam tëgal ko jox la nga xëcc tuuti rek ak sa tuñ yu nooy yi amoo doole amoo kattan bi nga nee cas meew génn yaa bënn ween wi ku la doole ma coon na ko ay weer ah loolu loolu na buwul dama ne am na ku la gënoon a doon ponkal daan ci fanaan ba bët set mu dem noddi allahu akbar jàkka ja meew génnul ah waaye Chérif gars yi dañ lay wax loo waay ah ñun <laughs> benn waay wax na ma ko dafay waxtaan mu naan ma eh, yow Malick Diop doo dem ma ne ko moom man ma dem ba del si bay delluwaat ànd ak Chérif nga naan ma doo dem mu ne ma <laughs> yow doo dem yu bees rek ngay indi ma ne ko man dem naa ba ñëw bay delluwaat Chérif mii moo ma yóbbaale ma ne ko yow toogal foofu rek. mais nañ waxante dëgg. bi ko doom màccee war nañoo xam ni doole génnewu ko. am na borom sikkim bu ko doon seex përëx përëx përëx ba fajar dara génnul. affaire bi du doole. kenn du suñ borom. e reelu na de. mais xikmaa ngi ci biir de. dama ne ah. d'accord nga. waay ku d'accord na tàccu waay bu ngeen d'accordee tàccu leen <laughs> waay mais loolay dëgg seetal suñ borom moo tax yàlla ku ko fi romb dem ca jàkka ji di ko wëri da lay riir new fa billahi wallahi taala ku fi romb yàlla fii romb ko ca kër ga romb ko ca chantier ba romb ko ci biir saxaar gi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 ah waay waay jërë ngeen jëf. tabaarakallahu